salaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi zawi ridwaani wa tamkin wa radiya allahu an baqiyati salaf wa qudwati alxalaf faxri ddiini walwatan mawlana alabdi alxadim ahmad bni muhammad bni xabibillah